mais dama ci bëgg a dolli li ñu wax la la ratification aussi du protocole africain sur le handicap boobu aussi depuis depuis quatre ans bientôt ñi ngi xaar seen ratification ndax maa ngi fàttali ne personne handicapées yi booy xool ci recensement bu mujj bi ñu ngi représenté 7,3 pour cent de la population maanaam daanaka 1 million 300 donc yi nga xamante ne moom la ñuy xaar boobu ba léegi mu yàgg ci yoon bi ci circuit bi ñoo ngi leen di ñaan ngeen jàppale ñu ñu mun ko euh, décompter. Il aussi la mise en place de la haute autorité qui doit être le le cadre de coordination et de suivi de toutes les euh, politiques publiques yi nga xamante ne ñoom ñoo war a toppatoo lépp loo xamante ne dafa dellu ci wàllu handicap donc yooyu seen ratification ñoo ngi koy xaar. pour li nga xamante ne moo jëm ci handicap yi mun a yemb waxoon naa fi bi passé aussi li dellu ci wàllu loi d'orientation sociale bi mais amoon temps terminé ko ndax 15 textes la si biir loolu am na onze décrets ñu jot a jël deux décrets yi. Euh, génnee ko mu des huit décrets yoo xamante ne wër nañ ko génnee ba léegi ñu ngi xaar ak quatre arrêtés ministériels yoo xamante ne tey moom moo tere application loi d'orientation sociale boobu donc personnes handicapées yi actuellement ñu ngi posé wu la question de savoir lan moo ko bloqué dañu bëgg a xam lan moo ko bloqué par rapport à la loi d'orientation sociale. de Abdoulaye merci beaucoup monsieur le président monsieur le ministre ministre de la justice garde des Sceaux monsieur le ministre du travail chers collaborateurs des ministres honorables députés maa ngi leen di nuyu euh, monsieur le ministre balaa may euh, continuer permettez-moi ma nuyu si ñenn si seeni collaborateurs à savoir sama frère euh, Ibrahima Diémé de l'autre bord et ma sœur Ndeye Soxna Badji maa ngi leen di nuyu bu baax monsieur le ministre tey nag dañu indi dañuy liggéey ci projet de loi bi nga xam na ni mm, mooy euh, projet de loi numéro 3 2024 relatif à la commission nationale des droits de l'homme ñu gis ne commission la bu am solo ci li nga xam ne ni moom mooy àq euh, ak yelleef ak ci doomu aadama surtout fii ci réew mi donc loolu euh, dafay wone tout simplement voilà importance bi nga xam ne ni le président de la république jox na ko li nga xam ne moom mooy droit de l'homme Euh, sur muy saluer nag euh, commission mise en place de commission surtout nag le fait que commission bi jigéen diite ko jigéen boo xam ne nii juriste la bu wane ay compétence am ak ay au niveau national international kon euh, bu fekkente jigéen bu mel nii la présidente Amsatou Sow na commission bi suñu xel dafay dal waaye lii dafay wane vision ki nga xam ne mooy le chef de toujours li nga xam mooy àq ak yelleefu doomu aadama euh, di surcroît tamit place de choix bi nga xam ne ni am na ko jëmale ko ci ñun jigéen ñi kon loolu dafa nekk loo xam ne dañ koy rafetlu mais aussi choix bi nga xam ne ni am na ko di ko terale jigéen ci politique bi nga xam ne moom mu koy doxal waaye monsieur le ministre ñu doon wax toujours euh, par rapport ak antenne yi nga xam ne ñoo ne ci région yi ngeen fexe gën leen a renforcer ñu gën a actif bu gën jox leen ay moyens matériel financier mais aussi yokk humaine bi nga xam ne ni moom moo fa nekk ngir ngeen mën a assister bu baax population yi nga xam ne ñoo ne ci base yi parce que bëri na ñoo xam ne dañuy nekk ci euh, base yi am ay problème ci wàllu yoon mais duñu xam fan la ñuy jaar électorale anticipée. Le maire de Kaffrine, mon frère Abdoulaye Seydou Sow, comme d'autres ministres, ont été refoulés à l'aéroport. Que je sache, il n'y a pas encore de décision de justice, même si des enquêtes sont en cours au niveau de la DIC. Je ne suis pas pour l'impunité. Je suis pour l'imputabilité. je suis pour la redevabilité je suis pour la transparence mais je ne veux pas que les erreurs que d'anciens régimes ont commises vous rattrapent ou soient commises par le régime tant adulé par tous les démocrates sincères du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye monsieur le ministre garde des Sceaux vous vous en souvenez nous avons salué avons rendu un hommage vous avons considéré comme un homme qui est justement à sa place. Et à travers vous, nous avons tenu à rendre hommage au magistrat du Nous avons même, en attendant, une DPG et un DOB ou une LFR, commencé à plaider pour l'accroissement, l'augmentation des ressources allouées à votre ministère. Nous avons tenu à également dire que les magistrats et tous les personnels de, de la justice doivent être dans des conditions idoines pour travailler. Ils Parce que c'est ça, la République. La République, c'est des symboles. La République, elle est d'élégance toute faite. Mais quand on me dit que sans fondement juridique, on n'est pas gardé en vue par la police, par les autorités policières, on n'est pas inculpé par un juge, on vous arrête. Alors que certainement, vous pouvez avoir un rendez-vous médical, vous pouvez avoir un rendez-vous dans le cadre de vos activités, au niveau de la Fédération de football, ça ne va pas avec ça. Et je pense que nous avons, euh, mon collègue, un de mes collègues a évoqué la patronage politique la commission d'éducation, de culture et même de conviction. J'accorde toujours aux personnes la présomption. J'accorde toujours à la personne un préjugé favorable. Et en l'occurrence, Madame le professeur Amsadou Sosidi, combat pour les droits humains, pour la justice, pour la promotion et l'égalité des citoyens ne peut pas être suspecté. Notre compatriote saine ne pouvait pas l'être. Mais l'herméneutique de l'arrière-pensée amène des hommes et des femmes à prendre des positions circonstances. Alors, puisque mission égale moins, que cette commission que nous allons adopter et qui est consolidante, valorisante, ne soit pas dépourvu de moyens pour ses ambitions. Sous ce rapport précis, Monsieur le ministre Garde des Sceaux, passez le temps de la colère juste, parce qu'il y a des colères justes, je voudrais de droit. C'est ça la conduite de l'État. L'État est impersonnel. Les hommes passent, les institutions demeurent. C'est pourquoi quand on veut dissoudre des commissions ou des institutions, ou quand on créer, il ne faut pas avoir le nez sur le guidon ou sur le calendrier électoral. En tout cas, je parce que je suis convaincu que c'est venu à son heure, parce que c'est d'utilité, parce que ça permet de replacer le Sénégal dans son rang au niveau africain et mondial. Je vous remercie de votre attention. Merci, chers La parole est à notre collègue Abbas, Abbas Fall, suivi de Massata Sambo.